asalaamaaleykum euh, suñu mbokk internet yi gannaaw bañ leen nuyoo ziyaare leen macha allah ni ma leen koy faral di waxee rek seen émission au nit ngeen koy am fii ci Evidence TV ànd ci ak sama ñaari jongama yi nga xamante ni macha allah tubaarfakàlla heure bu ñuy waree def émission ñoom ñoo ñuy gunge donc noonu la ñuy nuyoo ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci hôpital yi euh, di leen ñaanal euh, suñu borom fëgg seen bopp ba ñu génn ci jàmm ak ci salaam waaye tamit noonu la ñuy nuyoo ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ñoom la caabi féete gannaaw suñu borom euh, génn leen ci jàmm ba ñu fekk jiwaat seen i njaboot ci noonu tamit lañuy duggee suñu kër kilifa diine yi suñu kër kilifa aada yi ñaan la leen waaye tamit euh, talal suñu loxo ñu ñaanal ñu yàlla na suñu borom euh, nangu ñaan noonu la ñuy nuyoo tamit ñi nga xamante ni ñooy suñu chauffeur yi ñu nekk ci tali bi ma di leen béggee nag bu baax a baax macha allah di leen ziar dem ak jàmm dikk ak jàmm ci noonu tamit euh, macha allah rek euh, la laay laay waxee ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, suivre fi nga xamante ni moom moo di évidence ànd ak ñoom ci au nit di leen béggee lool ndaxte vraiment ñu ngi jot tamit retour yi bu baax a baax tey ñaan suñu borom lépp lu ñu fiy wax rekk na doon ngëneel waaye tamit na doon dégg tamit ak topp macha allah nuyu leen encore macha allah sama ñaari jongama yi man man ni ñu jongama man moo ma neex xam man su may jàkkaarloo ak yéen may war sànni xeer bi nga ne bu yow la ñuy jàppale yow la ñuy jàppale damay kontaan xam ngeen lool si sa ginnaaw lañ topp baax na ziar naa la Kalla euh, delloo naa la ziar euh, Penda ça va maa ngi si jàmm bu mm. baax a baax baaxee boo ni nga def ah yow laay jàppale. gis la sa rose noonu noonu octobre bi. ah tey moom kontaan <laughs> waa baax na. defoo ségrégation. <laughs> ziar naa la. <laughs> maa lay nuyu bu hmm. baax euh, pend Diallo di nuyu sama mbokk bi Maymuna Diallo. Hmm. di leen masawu yéen ñaan ñëpp sama mbokk waa Agnam. ci li nga xam ne moo ak si foofu noonu. mooy hmm. CRU fleuve euh, Sénégal bi. di masawu waa aussi waa Bakel ak bépp euh, habitant wu riverain wu kii bi daal. fleuve Sénégal. di nuyu suñu mbokk internet yi nga xam ne ñoo safoo suñu chaîne bii di Evidence TV di leen wax dal leen ak jàmm ci seen émission au zénith. merci beaucoup euh, Clara donc euh, ñu masawu tamit ñoom ñëpp vraiment fu waa Fuuta yëpp tamit aussi ñu masawu leen ndaxte jot nañu léegi léegi information tamit euh, suñu dëkk ñun tamit Agnam donc ndox mi mu ngi commencé di ñëw foofu xam naa dinañ ci ñëw du yàgg dara incha allah. Mm-hmm. Mounass Diallo maa ngi lay béggee. nuyu naa la Penda Diallo di nuyu Clarisse yéen mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm am mbégte ak kontaante teewaat fii euh, ni ko Clarisse waxee rek Penda danga may may ndax comme ni ñu koy waxee ñun tamit suñu mhm. dëkk Agnam mhm. ndox mi dafa commencé dugg di ñaan rek yàlla na si yàlla def jàmm di ñaan aussi comme ni ma ko waxee rek onon bandiraɓe surtout wonɓe diaspora ɓe wonɓe mhm. Dakar Sénégal partout ngandon ndiyam dam fuɗɗima natde ɗon e Agnam Siwol surtout Sara Galle Abdoul Dad Abdoul Dia en ah, ndiyam naati emin ah, ñaagui ballal emin ñaagui duwaw onon ah, fof on noddama hen pour mhm. wallon wajiɓe pour yo ndiyam ɗam wasa tampinde ɓe mhm. on salminama ajar machallah muna ko ko eragu vraiment lañ ko gis mhm. sank lañu ko yónnee vraiment vraiment sank lañ ko gis donc ko eragu donc ñu ñaan rek ñëpp def ci ñaan vraiment ci ndox moom nga xamante ni aussi ah, mu ngi ci yeneen dëkk yi ndax ñu ngi koy gis partout fu mu toll nii surtout si si si côté Fouta bi ah, côté Bakel masawu ñëpp ñi nga xamante ne vraiment ñu ngi ciy dund xam nga ndox dafa naqaree dund nekk ci biir ndox dafa naqari dafa metti vraiment ñu ngi ma saw bu baax a baax macha allah waaw mi noonu euh, dañuy ñëw ba léegi rek euh, suñu émission comme ni ñu koy faral di tàmbalee rek à chaque fois ñu ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Clarisse mu ñëw ak ñun ci actu people bi bu ko defee ngeen xam li xew ci àdduna bi waxuma ci réew mi kese de ci àdduna bi li fi xew ngeen di dégg à travers Clarisse Claro ñu indil tey waa tey li gën a fës si li nga xam ne mooy actualité people bi dañuy tàmbali si ki nga xam ne mooy euh, Amina Poté lu si si information yi mu ngi États-Unis en ce moment ki nga xam ne mooy jëkkëram mais mu ngi métti li nga xam ne moo am en ce moment cest à ki nga xam ne moo nekkoon ex jabar jabaru jëkkër ji mu mm. leen di harceler tout le temps ak ay wooteeg lu ne ba moom instant yi nee na moom xaru rek la bëgg mm. parce que dafa sonn si situation bi mu ngi dund lu metti fu mu toll nii ñu ñëw si ki nga xam ne mooy euh, Ndeye Gueye génn na si live TikTok nee na xale yu góor yi nañ ko may jàmmam ak salaamam waaw génnee na fa tamit ay kàddu yu ñaaw ak saaga fu mu gën a ñaaw yi foofu la ko tibbee <laughs> nee na nañ ko bàyyi de bu ñu yëgee ne dafa divorcé ay rumeur que moom dafa divorcé ba tey ñoo ngi koy harcelé di ko woo tout le temps moom nëbbu si kenn te mu ngi leen di ne aussi que wul ñu si ki nga xam ne mooy Siteu si shooting ngi mujj yi nga xam ne moom la def par rapport ak combat bi ñuy waajal moom ak euh, Modou gis nañu dafa am benn boss au niveau de son si ginnaaw bos bu xaw a étrange mu xaw a jaaxal nit ñi Ibrahima Faye nga xam ne mooy directeur euh, Lutte TV mu ngi rassuré nit ñi ñu xamee ko gën ko xamee ci buzz mu ngi rassuré nit ñi mën na dem ba ci kanam mu rees mm-hmm. parce que d'habitude ñooñu nga xam ne ñooy lutteurs yi dañuy jël li nga xam ne mooy ay stéroïdes yi nga ne mooy def effet noonu seen yaram mm-hmm. mais am na nu muy demee balaa boobu affaire bi dina rees mm-hmm. ñoo ci ki nga xam ne mooy Medshop influenceur bu siiw ak snap snapchateur ñu xamal ñu ne que instant yi dafa kii takk ñaareel ñoo ngi koy souhaiter un heureux ménage loolu moo gënoon fës li nga xam ne mooy suñu actualité people du jour. merci beaucoup Clarisse loolooy li gën a fës ci actualité people du jours waaye tamit ñaareel dafa xew kon dafa xew daal moom it xew na ci ki daf ñu bëgg chercher buñ ko tontu ñaareel dafa xew comme dafa xew wax dëgg yàlla ba ba ba ba ba tamit suñu suñu suñu président nga gis ni que macha allah mu ngi yor ñaar aussi tamit di woote ci ñëpp nañu yor ñaar donc ñi ci war a jor ñaar mu man man association boobu ñooñu di kii association bi ñoom Mamoudou ñoom Mamoudou bëgg naa bëgg naa ñoom tam ñoom Mamoudou bëgg nañu am ñaar neen dina ñëw sax keroog la moom Mamoudou ah, suñu xarit da ngay défendre ñaar Mamoudou sama xarit la sama xarit la défendre ma benn ñaareel secrétaire général bi Malick Diallo ñoom ñoom nee nañ bëgguñu ñaareel ah waaw kon baax na man daa jooju samay xarit la ñu mais daal ñu ñëw tamit euh, ci ki nga xamante ni moo di Amina Poté vraiment man mi tam déglu naa live am suivre naa ko lu yàgg vraiment mu ci wax ay wax yu daw yaram man daal yaakaar naa ne nag euh, kii euh, nu mu tuddati menace mm-hmm. est-ce que tamit doomu aadama war na mën a teg moroomu doomu aadamaam dara ba mu mën a ba mu mën ba xaru di ko ci dikkal. non man je pense que dee moom yàlla moo ma koy teg wala naqar. Mm. yàlla moo ma koy teg mu metti wala dee ñëw ma xam ne yàlla mais nit du tax ma xaru nit du tax duma def loo xamante ne ci àddina euh, ba boo tax may def yenn yi ah. masuma laak nag yow sëyoo maay sëy sëy bi maa moom sëy bi du ma la lijjanti c'est mm-hmm. nag xëy na ñoom dañoo siiw peut-être mm-hmm. ñoom seen mode de communication noonu la mm-hmm. def live ak yooyu mais su doon bu ko jaroon sax jaru woon sax muy def ay live ak yooyu da koy regle lu mu koy régler ci sutura mais bon comme ñoom seen dañoo siiw xëy na noonu la ko mën a régler mais je pense que nit ki sëyatul ak sa jëkkër ah jarum na nga ciy def ay xaroog yooyu seetaan ko yow nga toppatoo sa jëkkër mu doon sa objectif vraiment aussi sax am na am na yu mu ci wax tax yaakaar naa ne ñoom ñu nekkoon am nañu doom moo tax jëkkër xool ci doom ji ba téye woon ko foofu bi mu demee ba nga xamante ne wax dëgg yàlla jullit la dafa war a mën a ñëw Sénégal takk ñëw fekk Amina Poté takk ko mm. yóbbu ko foofu yaakaar naa amul benn problème boo xamante ne war na mën a metti noonu ba mu koy envoyé ay vocal parce que mu ngi wax sax si biir live am naan mm-hmm. boo leen dégloo message yi nga xamante ne moom la may envoyé te message yooyu noonu yaakaar naa jëkkër ji la koy envoyé mu koy dégg mm-hmm. mais am na keneen koo xamante ne aussi Sénégal la nekk mm-hmm. kooku tam moom mooy transmettre les les les messages mais foog naa ne daal comme ni ko may mën a waxee rek dalul yoon yow sama sa moromu jul sa morom humain daal sa morom nit mu jaral la nga ne yow mu dem génne ay kàddu xaru parce que xaru non seulement daganul euh, ñu ñëw euh, si cas bi nga xam ne mooy euh, ex jabaru jëkkër ji je pense que même bu koy harcelé tamit war nañu xool nu ñuy regle problème bi que ñu koy génnee si public bi nii ba ñëpp di si jot ah. aussi ex jabaru jëkkër ji tamit war na mën na régler problème ak yi nga xam ne moom la ko sekkaloon mais pas muy jëmale tamit eh, mm-hmm. wax di ko jëmale si Amina Poté parce que amul tamit benn sens mm-hmm. waaw yaa ngi doon sëy foofu sëyatoo kon yow ku góor ki nga moo nga war a amal affaire mais mm-hmm. pas xam ne yow moo instant moom mooy sëy ak sa ex ah vraiment wax dëgg yàlla man de xam naa ne daal bu dee man maay poté man moom dinaa toog wax dëgg yàlla en plein écran wax ko ni yow takkuñu la man lañ takk man maay sëy maay sëy sëy bi man lañ takk mais nga génn di gën a ah! di gën a wàccee sa bopp naan ba pare en plus tamit wax dëgg yàlla gis nga jëkkër ji ah. da koy jox lu bëree bëree bëri ne ko na ko may néew di doole yi nekk ci laay bam mm-hmm. ku ci sa wërsëg nekk ku ci sa wërsëg nekk soo duggee ci live am bàyyi sa numéro ci saa si la koy envoyé. mais mën na nekk tamit comme jalousie la li ñuy wax rek nga moom mooy loolu maa fa xëy na peut-être moom ba mu tolloo ci say ba xëy na lii fekk ko ci woon ku nekk ak nekk sa ko jàmm ah, carrément day dimbali ay néew du doole day jàppale ñu bëree bëri tey dangay gis naa la wax en plein lave ku ko ne dimbali ma ci sama ordonnance wala sama nàngam ngay bëgg a xam euh, nga euh, euh, révéler li nga xamante ne nii looloo la daal mm. mais dalay wax jël ko ci suuf Mm-hmm. après ah, ah, mu jàppale la dimbali la loolu doomu aadama bu baax ak borom xol bu rafet moo ko mën tamit nañu mm-hmm. bàyyi jàmbur bu mu sëy sëyam ah, wax dëgg yàlla mu may ko jàmm mm-hmm. donc ñu ñëw ci ki nga xamante ni tamit ba moo di lutteur bi donc <laughs> macha allah moom tam xam naa entraînement yee garaaw ba ba ba ba tax non Siteu Siteu Ah, man combat bee mais nañu xool bu baax affaire yi nga xam ne moom lañu nañu xool li ñuy utiliser nañu xool bu baax li ñuy consommer parce que doy na waa trop préparation combat dëgg la yaa ngi entraîné yaa ngi def lu ne mhm. mais aussi laa santé avant tout yow boo defee loolu yëpp nga ñëw indi sa bopp ay problème sa fan yi commencé lam-lamee na di nga bëre wala doo bëre xam nga loolu tamit arrangé aussi nga xam ne depuis ay weeri weer ñu ngi toog di la xaar mhm, mhm. nga ñëw ñu ne fomm nañu combat parce que Siteu dafa feebar. xam nga loolu tamit du am benn sens. nañu bàyyi xel bu baax si li ñuy consommé. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw am na benn mbër comme que mbiru mbër la moom doo tudd tur da ngay wax nii rek. mbër moom doo dugg ci ay dossier am benn mbër bu ci amoon <laughs> problème benn année. naanoon affaire yi kanam bi déformé. Oh. xam yaa ngi xam ki muy wax. kanam beeg yaram bi yëpp déformé mais finalement gis nañ bi mu ko bàyyee. dafa affaire dafa ñëwaat normal. léegi nag. nu ko Clarisse waxee euh, sa santé ak combat beeg genre gagné nga ko bu la ci gënal ñoom ñooy xool parce que wax nañ médecin yi wax nañ ci li si nekk mhm. ak yeneen ak yeneen yëpp conséquences yi xam nañ ko mhm. donc te xale la si te xale la mhm. xale bu ndaw voilà mu jéem a jël yoon bu baax bi rek te bàyyi waaw kese kese te bàyyi yooyu je pense que tamit enjeu ba diis tamit ah dafa diis waaye tamit nga nar a dajek nga xam ne mooy roi des arènes ma ne ko couronne bi daa diis couronne bi nga bëgg bëgg a gudd jox si couronne bi moom ma ne ko couronne bi la de moom moo ko laaj ah couronne bi roi des arènes loolu la tamit ah dafa diis de combat bi dafa am enjeu waaw yii dafa diis dafa diis yàqaar lu roi des arènes rek pression la de ah gone gi nga xam ne tubaab fa kàll pression la de si roi des arènes nga xam ne fu mu toog ne déedéet couronne bi kenn du ko nangu si man waaw ah, mais bu mu la jaral tamit di naan ba yenn yi tamit génn sa yaram bi ba jour mm. jour ji tamit kenn ñaanalu ko doo ah. kii donc ca ay fa ah yàlla baax na ah, yàlla baax na na na na tane di jaamu salaam mu ñëw ak en bonne euh, forme xaw ma mm. ca ca ca ca ca biir mbir ma ca biir làmb ja <laughs> donc daal mu ngi noonu metti na waaye doy na waar mm. waaye tamit xale yu góor yi waxoon nañ ko keroog dinañu ko waxaat ay eh man xale yu góor yi li laay war a sulu nañu bàyyi jàmbur yi ndéygéey nee na leen moom tamit moom wax dëgg yàlla tasul est-ce que duñu bàyyi tamit doo euh, jigéen ñi ñi ñi ñi ñi topp di di di di sonal man euh, tasuma mooy li ñuy waxaat rek sëyu célébrité moo mel noonu ah doy na waar ñun suñu sëy sëy sëy ñoom loo mënta def danga koy exposé booy mm-hmm. root ndox ci robinet bi sax da ànd ak sa jëkkër ngeen root booy dem boutique ba ngeen kii xam nga ñoom ñoo exposé seen sëy ci réseau sociaux bi moo tax mm-hmm. bu problème amee sama genre ku ne danga ciy am am am kii wax Ah. nit yàgg na am problème ci sëyam fii kenn du ko xam. wallaay mm. mais ñoom ñoo exposé seen sëy di def live di kii. moo tax finalement bu problème amee dañuy naan que dafa divorcé ah. genre xale góor yi ku nekk amaale bunt di doy na waar nag doy mais comme taxaw na nee na mi ngi sëy nañ ko bàyyi mu sëy ko bàyyi mu ah doy na waar trop. wax dëgg yàlla duñ ko bàyyi mu sëy keroog rek waxoon nañ si. <laughs> par rapport ak. Euh, waaw par rapport ak di ko publier. vraiment vraiment parce que dañ ko nopp. vraiment harcèlement bi la ñu war a bàyyi tamit. ah nañ bàyyi loolu tamit waaw siiw du jaami borom tamit du jaami borom. ñoom tam nañu moy tam nu ñuy exposé seen vie dañuy exposé wu tamit de trop. Mhm. lu ndaw ñin ñi xamal leen. vraiment ah rumeur yi divorcé na divorcé wu. Ah, wallaahi xale yu góor tam ñu ngi fi yor seen téléphone rek boo ah. divorcé tamit moom c'est normal jël seen téléphone. waaw waaye tamit ku dem ba defaral leen live ku dem ba defaral leen <laughs> live wax leen li mu leen wax man tasuma bàyyi leen ko nag wax dëgg yàlla ak papaam mu sëy sëyam macha allah ah mm-hmm. ci yoon waaye jàmm dama sëy seen waaw mi ngi noonu donc loolu moom moo nekkoon rek li nga xamante ni moom moo di actualité people bi ah ñu ko ci nekk rek vraiment am loo ci indi ñu ñëw rek tamit ci li nga xamante ni moom moo di suñu thème du jour tey ñu indi li nga xamante ni mooy euh, la mandicité au Sénégal Euh, quand les étrangers euh, s'en mêlent donc muy euh, mendicité bi nga xamante ni moo fi am suñ nee mendicité rek en wolof ñu xalaat yalwaan donc ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ci ci ci rue yi ci ci mbedd yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy étranger yi ñëw ci suñu dëkk di di di yalwaan nan lañ ko gisee ak nuñ ci war a mën a waxtaanee ñu bàyyi munaas nga ñëw ci Penda comme d'habitude rek macha allah thème bi am na solo parce que boo xoolee ci jamono jii nii Sénégal dafay dund loo xam ne avant xamuñu ko woon. Mhm. avant yalwaan bi amoon fii. da ngay gis ci dëkk dëkkaan yi lañ daan jóge ñëw installé wu à Dakar. Mhm. mais léegi dañoo gis euh, mendicité bi nga xamante ne moom moo am jamono ji. Mhm. dëkk ak dëkk la. jóge ay Niger ay Nigéria doo xam yan façon dëkk fan façon lañ jóge mais ci Afrique la ñu doon. daal di ñëw daal di sanc benn gox boo xamante ne dañuy dem ba defar li ma mën a wax entre guillemets ay QG. dañ fay sanc ay mbaar ñii sanc fa ay kii mu mel ni rek benn quartier boo xamante ne dañoo dem ba ba ba dëkkal moomal ko seen bopp ci ay koñ te loolu mën na jur loo xamante ne ci koñ bi insécurité bi mu mën a jur ah ak yeneen ak yeneen mën na favoriser ay maladies parce que bërëb yooyu daanaka duy set noonu parce que gis nañ ko ci télévision bi mais macha allah euh, gis nañ dinañ ci ñëwaat gouvernement du Sénégal. Mhm, taxaw na ci mhm. taxaw bu am solo. Mhm, vraiment waaw vraiment gis nañ ci taxaw ci taxaw bu am solo Clarisse noo ko gisee. mendicité bi doy na waar trop trop penda mm-hmm. bëri na si dëkk bi mm-hmm. dañ fi doon gis eh, zone yi nga xam ne promiscuité rek nga daan gis si zone yooyu noonu mm-hmm. état bi jële fi zone yu bëri te boo xoolee ba xool zone yooyu ay vagabondage moo fay am te ñuy def euh, mendicité ñu bëri ñooy dëkk euh, si zone yooyu noonu am na yenn jigéen yi nga xam ne bu ñu demee ba à un certain âge nañ ma baal mais ay kii la ñuy doon ay fille de nuit la ñuy doon te dañuy jur dajale xale yooyu tam bu ñu màggee du ñu am benn suivi ñoom ñooy doon tamit ay vagabond si mbedd yi te doy na lu doy doy waar ñu gis temps yi tamit dëkk bi dafa inondé ak ñi nga xam ne ñooy étranger yi ñoo fii si suñu réew di yelwaan tamit doon lu doy waar kenn xamul fu ñu jógee kenn xamul kan moo leen fi dugal ñu inondé nu noonu da ngay romb si mbedd mi sa xale yi téye sa loxo sa yaram di daw xale yi ndaw ndaw yi nga xam ne amuñu deux ans mm-hmm. yàlla ma yàlla baal maa ngi naan amuñu deux ans amuñu cinq mm-hmm. ñu ñëw jàpp sa loxo fajar teel nga naan kii fan la jógee nga dem kolobaan ñibbi ngoon jot nga gis leen ñu boot seen i doom di làq ñaa ñaa nga naan waa ñi moom ban dëkk lañ jógee lii ban genre xeet la ñu ñëw envoyé suñu dëkk bëri fi loolu loolu nar a yokkaat li nga xam ne mooy pro promiscuité bi góorgóorlu nañu jële fi zone yi bëri nga xam ne mhm. amoon na situation yooyu mhm. noonu non seulement day indi insalubrité non seulement day indi tamit li nga xam ne mooy occupation anarchique bi tamit da koy yokk lu bëri bëri sonal ñu xatal ñu mhm. ba fa dëgg yàlla c'est pas question que dara tamit mais ñu tam soxla nañu dëkk bi nga xam ne dafa set amul kër amul fu mu nekk amul abri jël mbedd bi def ko abri benn jour maa ngi dem def benn concours pas plus que daaw euh, au niveau de nu mu tudd encore sa euh, lycée Blaise Diagne. Mhm. ma dem dafa def benn concours ma génne porte arrière ba. mais mhm. man li ma gis man dama tiit. ma ne man xaw ma ne man si. pont wu Fass bi lii am na fi. Oh mu ko ñii nekk te fii la fanaan lii mooy lan suba teel bi ñu ne dañuy ranger seen bagage fu ñu mais dafa doy waar. dafa doy waar. Mhm. Sénégal dëgg la c'est le pays de la teranga mais ñi ñi nu ñuy duggee fii nii mais dafa xaw dafa doy waar. teranga tamit ngay dugg nu la neexee. dugg nu la neexee ñëw si dëkk bi doon ay yalwaankat liggéeyoo leen sukkaliwoo leen économie Sénégal du question de sis tamit mais nañu jàppale tamit. Mhm. parce que ñoom ñooy yokk salte bi si dëkk bi. si mhm. mbedd mi la ñuy sangoo lépp ci fan lañuy léegi bu feen bu ñuy def seen besoin guddi bu jotee fan la ñuy def seen besoin ñooñu nañ ko nañ ko wax te dee tamit dañu dem ut benn rukk rek def la ñuy def ah? kese mais loolu yëpp baaxul si si avancement wu ah, réew ah, tamit nañ ñu jàppale aussi bu baax a baax si étranger yi ni ñuy duggee si biir wax wax wax dëgg yàlla munaas mhm. euh, ñu ngi ciy wax léegi ne que gis nañu euh, ministre bi moom tamit euh, def na ci jéego yi am am solo mhm. ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy juge ñooy étranger yi di juge seen dëkk di ñëw di fi sanc ba mel ni ku nekk ci dëkk ñoom bu ñu sancee yemuñu sax ci kiitoog fii wala kii fii dañuy def ay mbaar comme ni ko waxee léegi mm-hmm. ay tente mel ni ku nekk ci dëkk mm-hmm. donc euh, euh, loo gisee loolu déjà sax avant may ñëw ci ministre bi ñun mm. Sénégal fii mendicité bi fii am rek ñun doy nañu ndax gis nañu fi ay mm-hmm. problème yoo xamante ne ñi ci yenn daara yi du daara yépp Mhm. gis nañ fi ay daara yoo xamante ne amoon na amoon na daara bu xuma ban quartier woon bu fi amoon incendie ay taalibe décédé woon gis nañ fi ay taalibe yoo xamante ne dañ leen di ñu baal ma si wax bi gis nañ fi mhm. ay taalibe yoo xam ne dañu leen di dóor a dóor boo duggee ci réseaux sociaux yi ngay gis <laughs> euh, benn année aussi euh, fi ma dëkkoon léegi toj nañ ko sax dafa amoon daara bu ñu takkaloo woon mhm. mais foofu boo ko boo ko gisoon nu meloon man dama ne man du ma du ma a yóbbu sama njaboot daara ndax mhm. li loolu ma doon gis foofu danga naan tëdd ba 3 heures du matin dégg xale bi di wuy sama ndey wu bàcc yi di bàcc bàcc nga gis ay dëkkandoo xaaji guddi di yuuxu bàyyi ki ngay dóor finalement bi ñu yeewoo matin ñoo takkaloo benn kër bi ñu yeewoo matin fekk fa sax oustaz bi sax nekk fa benn surga la fa bàyyi mhm. surga boobu aussi dafa xawoon feebar tuuti donc mu leela man man après dama ne ko carrément pour tiital ko ma ne ko ñun dañoo waxee laa xam ne kii dafa xaw a mais mais daara yi ñun suñuy daara rek am na problème mm-hmm, mm-hmm. yalwaan bi fi nekk am na problème gis nañ xale lu ñuy daj insécurité bi yëpp pareeguñu loolu ñu ngi régler loolu ñeneen jóge fee ñëw gis nga mais à kii la faute ah, ah, ah, à qui la faute ñooñu bu ñuy ñëw fu ñuy jaar mm-hmm. je jëluñu gaal fu ñuy jaar ana ah, ana dëkk bu amul bunt bu amul porte daal moom moo demee noonu ana contrôle ana ñiy contrôler frontières yooyu mm. à chaque fois dañuy gis ñu rapatrier leen yóbbu leen mais dangay ngay saa gisaat ñu ñëwaat Clarisse mi ngi wax canal bu Fass mais boo demee woon euh, mur bi nekk Tilène stade bi noonu Iba Mar Diop Iba Mar Diop def naa sax bokk na ci ñoom ñu ñu kii mais foofu moom dangay ngay defe ne foofu mooy seen village dañ fa bari woon bari ba pare man sama yaram day daw dañ lay xale ndaw da ngay jékki saay ñu langaamu la imagine mu tase koo xamante ne day def lu bon ay xale kooku du ci dal yóbbu donc vraiment ministre bi ñu ngi koy encouragé ba pare aussi jeunesse sénégalaise bi bokk na ci li tax ñu gën a yëg loolu parce que ñoom ñooy dugg ci réseaux sociaux di ko dénoncé voilà di ko dénoncé ñoom dañuy dénoncé vraiment lu mel noonu bu ñu ko ndax day tax mhm. gouvernement bi day gën a xam yan point ak recoin mhm. ci la gars yi di nekk mhm. benn vraiment loolu moom am na solo trop menace comme ni nga ko waxee rek xale yi nga xamante ne ni ñoom ñooy influenceur di génn vidéo lii mm-hmm. rafetul lii mm-hmm. ñaaw na mm-hmm. ñoom tamit bi ci liggéey bi parce que dina tax ñu xam nekk euh, euh, uh-huh. surtout ak li nga xam ne moom la ñuy waajal nga xam ne Sénégal moo koy accueillir Jeux olympiques euh, de la jeunesse yi nii ñuy waajal xam nga tamit ñaaw na torop nga ni ñëw fii fekk ah. dëkk bi mel noonu ñu defal suñu infrastructure ba mu baax di waajal ngeen ñëw occuper leen suufu pont yeeg fépp fu baax ngeen ne ak rond point yeeg fépp fu baax ngeen ne yéen foofu ngeen war a mën a ñëw def seen abri loolu ngeen teg ko fan dëkk bi daal moom warul baax dëkk Sénégal daal moom daal moo war a nekk dëkk bi nga xam ne moo gën a salte <laughs> dëkk bi nga xam ne moom mooy accueillir n'importe qui. loolu tam war nañ ko xoolaat bu baax a baax. Mhm, mhm. comme dañ daa kon teranga ñoom nu leen neex. lañ koy jëlee wala ah, dundee. xam nga sénégalais tam daa ñeme saraxe. baax di maye baax moom def na ko moom moom. man man bi ma leen njëkk a gis. Mhm. ñii nii ça fait des années boobu ñu ngi woon faa suñu kër. ay xale jigéen ñu miñoon ñoo xamante ne 5 ans 7 ans tee pot man c'était la première fois ma ne waa jigéen day yalwaan. mais après ñoom dégg ñoon olof. ci imaginer xale bu am jigéen 5 déjà ba dañuy rafet. 5 mhm. ans 7 ans nga ne ko dama dugg ci kër yi. di wuti di wuti tey jii bu duggee ci ah? kër ku bon tey jii du ko def lu mu koy mm, def. te tamit aussi li nga xamante ni surtout sécurité laa ñu amul ci boppam. yow ku di tëdd ci dëkk ci mbedd. di tëdd ci mbedd. Mm. yow wax góor bu dee góor la sa sécurité mooy loolu wax ma la ak jigéen. Ah. doy na waar trop te yor ci ñu bëri ñuy tëdd ci mbedd est-ce que loolu tamit loolu tamit. mais tamit nañu waxante dëgg ah la dal naa ci ñemee ci ñoom ñoom laay dal yow jógee nga sa dëkk te c'est sûr que am na benn débat bu ma mësoon déglu rajo neena ñoom boo demoon tey seen dëkk yaa ngi fa am nañ fa seen néeg mais xam naa dañu naan Sénégal fii la teranga bi nekk dañoo sarax beeg yalwaan bi fii la doxee mm-hmm. nga ñëw installé wu ci mbedd bi xam nga yow déjà yow yaa lor sa bopp de un sécurité bi nga war a am yow yaa ko insécurité bi yow yaa kii sa bopp ndax yow yaa tëdd ci mbedd bi ñun ñu fi dëkk juddoo fi yaroo sax mm-hmm. suñu insécurité mooy loolu mais a la mm-hmm. da gis nit ku yalwaan ba tabax kër waaw moo tax nit ñu bëri tam dañuy yàlla nañ yàlla baal dañuy gis kenn ki nga xam ne dara dalu ko génn si mbedd mi di yelwaan di yelwaan même fii nii de même fii nii de même Sénégal yi fii gis fii ñu bëri ñi nga xam ne waa parce jàpp ne dafa moo tax ñu bëri da ngay gis ne nit ki dara dalu ko mu génn di yelwaan gis nga hmm? loolu tamit parce que dafa dox kii sa bopp hmm? tamit hmm? ah doy na waar torop ah, yow mu jaral la yow nga jóge sa dëkk <laughs> bàyyi sa néeg bàyyi sa confort ak lépp nga ñëw ngay fanaan si ay mbedd suufu pont ak loolu la pare jur seeni doom. Sénégal mbedd mi et en plus et en plus euh, euh, menace. Mhm. ci loolu lépp Clarisse tamit mhm. les conséquences. yi nga xamante ni yow mii nar ko indil dëkk ba nga jë ba nga nekk. Mhm. yow nga yore xale. mu dem ba màgg tey jii. nga gis beneen moroomam mu ngi jàng wala mu ngi def nangam su ko deful rek dina dem dina defi bandit yi. des vagabond vagabond lay doon vagabond lay doon di. parce que yow kooku kooku yow pour mu survivre aussi tamit il faut mu am na mu mel. lan moo koy dundal boobaa. dugg dugaloo ko école. Ah. loo ko métier. fu mu jaar kay dina wut beneen moyen de de de survie. li muy xam mooy dem jël. dem jël kay wala mu dem topp ñi nga xam ne. ñooy ñooy ñooy kii ñooy ñooy jaay yu bon yeeg ah, yooyu. Ah. dugg si. kese suba nga dégg ñu ne la génnee tëj nañ ko génnee nañ ko à chaque fois. et eh, day dem ba nekk récidiviste. wallaahi di dugg di génn nu ko neexee te du ko sax. gis nga gis lay mujjee rek. kese loolu rek loolu rek da koy favoriser parce que mhm. boo nekkee ci benn bërëb nekk fa ay année. Mhm. ngeen dem au fur mesure ba nga màgg ci koñ bi. Mhm. yow ñi nga daan gis ci koñ ba ñoom ñi ngi école ñi ngi seen métier. yow jàppoo ci métier jàppoo ci école jàppoo ci dara mais finalement da ngay xool kenn xale bu jigéen bu romb ak saak wala cheveux nga xëcc. boo demee plage nii tey may wax nii da nga fay fekk ay gos yoo xamante ne du ñu ay sénégalais ñu ngi foofu toog. Mm-hmm. di xaar rek di def lu ay musiba wala di di agressé. du fi jeex donc conséquence boobu c'est vrai mais ci ñun sénégalais yi lay metti mm-hmm. donc ministre ministre de l'intérieur ni mu ko commencé woon na ko continuer. Mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di ko di ko dénoncer nañu fexe chaque jour fu ñu gisee groupe bu toog nañu leen kii du li Clarisse wax bonuñu. pays la teranga nag de la teranga nga jaar si yoon parce que ñun tey sénégalais aussi bu ñuy demee mm-hmm. yenn dëkk yi du ñu nekk fa xanaa ah si li ma gis xanaa du ñu def yenn yi donc di yalwaan yeeg yi je pense que sénégalais non doo dégg sénégalais boo xam ne génn la fi dem dem dem dëkk sax dali xanaa même ministre bu jëlee ay mm-hmm. ndogalam ba ñu mm-hmm. appliqué ko da ngay toog quelque temps nga gis nga ñëwaat loolu mooy dafa war a am suivi beneen dérive encore dafa war a am suivi foofu à qui la faute ñoom fu ñu jaar ba dugg c'est ça aussi parce que doo xam ne ñu defaat ba dugg loolu dafa war a am bu jël ay mesure am di nga dégg ñu ne rapatrier nañ leen quelque temps plus tard nga gisaat ne ñu gën a dépassé dëkk bi ñëwaat mm-hmm. ok non yaakaar naa ne xëy na comme ni mu daan demee du a xam ñoom fan la ñu a mën a jaar ak fi ñuy jaar nu ñuy ba dugg ku ci dugg rek tamit aussi ñu ñu ñu génnewaat la mais Penda mendicité tamit mm-hmm. dafa xóot xam nga ñi ngi wax ci étranger mm-hmm. mais di gis benn menace jaxla boo xam ne dara jotu ko namul dara mi ngi kii mais fu mu kiiwee mi ngi jël kolam muuru dem taxaw génn secteur boobu yëpp dem toogee benn côté di yalwaan fekk ay doomam ñi ngi sonn man suñu benn classe mosoon nañu ko nee na maamam par vendredi mosquée bu point e la daan def xam <laughs> nga point e, fa la ñoom Idrissa Seck ak Ablaye Wade. waaw <laughs> yalwaan gi bi ndekk day dem yalwaani noonu ba ñu mos ko fa bett mais nee ko kooku naan maam yow mu jël kol bi daw xam nga loolu léegi ni ma wax ni bilaay sama moo ñu ko doon wax. am na si ay ñoo xam ne dañ koy def fekk dara jotu leen dara loolu rek mën naa si jël euh, exemple benn jour ba ma demee hôpital principal pour ah. faju ma ñëw ma toog toog si file d'attente bi di xaar. Mhm. mu am benn waay bu ñëw ne ma dama war a def opération. nii wax ba pare. ba ma génnee ma sarax ko ba pare ñu bàyyi ba mu dem ñëpp naan kii nii lay nii la mel. doorkat la xaw ma de ne mu ngi koy def. gis waaw nii la mel waroo ko wan sarax. ma ne sama xel sénégalais jikkoom moo nañ ma ko teel a wax si kanamam. waaw gis nga ma bañoon koo sarax ñu bàyyi ba mu dem te te cas boobu nag à chaque fois dama koy gis. gis nga bu may jàngee Lamine Gueye mënuma wax at. benn xale bu góor chaque ngoon mu ñëw Petersen tàllul fukki dërëm ne la do mottalil ma paas. mooy bo kii yor saag bi wala bokk la kii yor saag bi. am na benn grand bu yàgg ñun tam saam noonu bi ñu nekkee euh, Maturin kooku moom saag lay yor. <laughs> taxaw na day comme si élève te te ñooñu ay doomi Sénégal lañu. mën nga dem tey jii mën nga dem yenn ji nga am loo xamante ne nii da ko yàgg na fi même benn am na kenn tamit ki nga xam ne day taxaw si tali bi ñëw ne la euh, Kër Massar fee dama mottali paas chaque jour mu def ko paa la keroog dañ ko roob rek maa grand bi dañoo waxandoo ne xanaa chaque jour nga manqué paas maa grand bi tak ñu xool comme ñoo ko waxandoo tourné rek xoolante rek ree gis nga ñu nga koo xamante ni nii gaa quand même du bëggut a yelwaan bi sax mais xëy na dafay manqué le pour nga mottali ko mais tous les jours tamit nga ñëw nga def te yow yàlla pattalu la làggalu la nga war a mën a dem liggéey yi même yenn ji même nga dem au marché di jàppale ay saag ne xale yi di def nii ñëw sax nga am dara yóbbu sa kër dara la mm-hmm. mais tamit en fait euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal tamit ñi nga xamante ni ñoom tamit ministre bi am na ñu mu jël mm-hmm. ñu xool ba xam dina ñu leen appuyer jàppale leen même loolu tamit daf ci daf ci baax daf ci baax non non ñi nga xamante ni ay sénégalais lañ ay doomi senegal lañ bëri na fi ñoo xam ne ñu ngi ci mbedd mi toog te ay doomi Sénégal lañ effectivement ñoo fi ëpp ñi nga xam ne tamit ay handicapé que ce soit moteur wala ñi nga xam ne eh, duñu gis tamit il est temps aussi ñu xool nu ñu leen di réinsérer bu baax a baax a baax waaw warul si mbedd képp ki nga xam ne bëgg nga tamit am benn liggéey bi nga war nañu leen si mën a jàppale waaw ñu jàpp sociale baa mm, mm, baax na fi baax na leen benn yoon ginnaaw peut-être ñenn ñi ñooy préféré dem toog si mbedd yi di yalwaat aussi mais bul jël sa feebar nga jël ko def ko mm, handicap à tel point chaque fois nga dem ba yow ñi ñu gën a yërëm mm-hmm. boo mënee def benn métier parce ne tamit ay am si li ñuy yore seen seen yore seen liggéey <laughs> yore seen i liggéey tamit macha allah mais bu jël sa handicap man gis naa ci ñoo xamante ne nii vraiment handicapé bi am jom ba dee nekkul ci ñoom dara mm-hmm. peut-être yàlla lu mu teg ci ñoom la waaye jom dañu am xel mooy andi. mais bul nangu ñu yërëm la rek bul nangu ñu yërëm xel sax mooy andi mooy euh, jom gi ñu am macha allah dañuy yore seen seen seen seen seen pousse mhm. dañ ciy toog mhm. mais dañuy dem liggéey seen liggéey ñoo xam ne ay tailleur lañ mhm. ñoo xamante ne ay cordonnier lañ dañuy defar yu rafet yoo xamante ne macha allah. ma di ci jaaree mm-hmm. rek di nuyuwaale euh, association des des des handicapés de Pikine. Mm-hmm. ñu nekk ñoo xamante ne boo leen gisee da nga leen di naw. macha allah kontaan ci ñoom vraiment. ah ay activités yu yu bëri dañ koy def. donc aussi ñi nga mm-hmm. xam ne ñooy euh, nongo daara yi aussi. Mhm. dañ leen war a jàppale bu baax bu ñu mënee soutenir ñu xool aussi nu ñuy wàññee mendicité bi par rapport ak xale yi ah. ñaaw na trop ñu gis xale bu ah. ndaw a ndaw bi nga xam ne boo xoolee sa <laughs> xam ne amul sa 10 mu xëy fajar jël oto dem ba Colobane ngoon bi bu ñuy nelaw sa oto bi doo bëgg sa dend ak ñoom parce dañuy daanu sa kaw yow da sonn ñu sonn fajar la ñuy yeewu boo doon dem voyager ba ñëw Daara Jolof ci booy dem Fuuta boo ñëw Daara Jolof foofu moom li ñuy naan sa moom Daara Jolof ay taalibe taalibe taalibe ñoo nekk ci station garage bi. garage waaw doo comprendre xale yoo xamante ne boo leen gisee rek dangay naan ñii ana seen mbokk wala ana état. bu ñu doon def classement moom dëkk par dëkk par rapport ak mendicité xam naa ne Sénégal moom mooy yëpp moom moom laay ca moom mooy féete nañ ko waxan wala Dakar fii da ngay gis kër goo xam ne dañ koy tabax pareegul noonu ah, wala kër bu ñu abandonné benn benn baa jóge fële indi ay quelques xale installé leen ci kër gi kii daara commencé kii xam nga nekk fa di yalwaan loo xale bu ñu xëyee ñëw nga sas leen genre ku nekk 900 par jour <laughs> mais xale bi soo ko sasee 900 soo ko indiwul ma door la def day sàcc day sàcc fi ay taalibe yuy dugg ci néegi di sàcc gaz di sàcc portable à qui de la faute parce que dañ ko nekk dañ la sas am na fi du fi jeex man nee naa dëkk nag daara mhm. dañ lay sas boo indiwul temps duñ la jox doo boo ñëw dañ lay dóor ba ngay bëgg a dee da ngay obligé dem di sàcc donc mendicité bi mi ngi ci Sénégal te dañoo jël kii rek ñee mais li nekk fii Sénégal tamit lu ñu war a régler la ci daara wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla li Sénégal war nañ ko régler ci daara yi doy na waar trop mhm. donc ñu ñëwoon foofu rek ci ci ci suñu émission mais tamit aussi euh, lépp lu ñu waxtaanee rek peut-être loolu war nañ cee mën a indi xalaat loo xamante ni mooy suñu solution mm-hmm. ñu indi ci xalaat boo xamante ni peut-être que nañ koo jël comme solution mm-hmm. ban xalaat nga ci am waaw man solution bi may préconiser rek mooy ñu gën a jàppale daara ñu moderniser ko mm-hmm. parce que tamit nag mën nga nit ki mën nga jàng daara parce que tey mën nañ nekk ñu fi baax tey ñu bëri si daara yi la ñuy donc daara yi ah bokkul ak dara daara ya amoon daara ya ay comme ni ma ay ñu ci bëri ay dóor la dañuy utiliser xale yi mhm. pourquoi pas genre état bi noonu li nga xamante ne dañ koy soxla ji xale bi di génn di wër ci mbedd bi ba ci am ay accident ay problème ah. ñu jéem même mënul même bu munul nekk à 100 pour cent ñu jéem ne ko installé ci ci ci ci daara bi nga xam ne au moins du génn suñu genre yi nga xamante ne dañuy xëy di jox kii bi 900 francs fukki dërëm boo génnee nga jëndal ko lu mu lekk nga jox ko parce que bu daree tam da koy jox ustaas bi rek benn xale bu jigéen moo ma ko nee na man du nee na du sarax kii euh, taalibe ma ne ko lu tax mu ne su ma ko joxee kii bi la koy joxee oustaz nee na moom toujours day jënd pain def ci chocolat ne ko lekkal xam nga loolu tamit mooy loolu donc na leen état bi jàppale waajur yi tamit ku si mën a téye parce que doo xam lu tax mu yóbbu doomam mais ku ci mën a téye sa doom booy sommi ngeen sommi nga teg ko sa wet parce que daara yi li fi nekk c'est c'est c'est vraiment. doy na waar par exemple par fois dangay gis say sa doom nga jëlee ko dëkk ba indi ko fii naan jox naa ko sëriñ di ak nangam ndogal yàlla fu nekk lay jóge ah comme la fois passée rek fële déggoon naa ñuy wax am na benn euh, oto bu bu bu fa tifiiroon taalibe bi ba mu gaañu. te boobu noonu saan ki doon dawal oto mbali bi yëgu ko xamu ko. te ah. xale bi mu ngi tëdd ci suuf oto bi. heure boobu doo ko xalaat mm-hmm. que ni xale bi dañ koo waxoon na indi temps matalu loolu xam nañ su demee dinañ ko dóor mu tëdd si suuf oto dañ ah, wax dëgg ah, yàlla lu lu daw yaram comme solution loo xamante ah, ne war nañ si ut mm-hmm. solution bu baax a baax parce que depuis des années tamit ñoo ngi koy wax par rapport li nga xam ne mooy euh, taalibe yi mm-hmm. par rapport ñi nga xam ne à chaque fois ñooy nekk si dëkk bi di yelwaan il faut ñu jël ay mesures yi nga xam ne dafa strict surtout ñi nga xam ne ñooy dugg suñu réew te kenn xamul nan lañ def ba dugg fi tamit doy na waar torop dëkk bi c'est pas question dañoo siis comme ni ma ko waxee sànq rek mais dimbali leen ñu rek ngeen may ñu suñu espace public yi aussi parce que dañ ko soxla lool bëgg nañ tamit dëkk bu set bëgg nañ tamit li nga mooy sécurité bi mhm. mu jëm kanam ah, vraiment wax dëgg yàlla tamit suñu réew jëm kanam comme yeneen dëkk yi mhm. ngeen jàppale ñu bu baax a baax jàppale ñu si ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy yelwaankati si mbedd yi xool nuñ nuñ koy wàññi bu baax vraiment vraiment ndax Sénégal doon na dëkk bi nga xam ne fa la ñu gën a remarqué li nga xam ne mooy mendicité bi mhm. waaw foofu laa yem pour tey vraiment fa la ñu gën a mën li nga xamante ni moom moo di mendicité bi mais mais mais mais mais su fekkente ne ne jàppal am na. Mhm. dimbal am na. Mhm. gëm nañ ni que peut-être mun na dem ba wàññeeku comme ni ko Mounass waxee léegi rek. waaw ñi nga xamante ni suñu borom euh, duñu wax sax may na leen ndax suñu borom mayewul day dénkaane. am na lu mu leen mhm. dénk as tuut am na loo mën a jël nga jàppalee ko kenn. koo xam ne tey mën nga koo fekk si mbedd mi mu toog di yalwaan boo ko jegee di nga xam lan moo waral yalwaan boobu. soo ko jegee di xam lan moo tax moom. muy génn ci mbedd mi ñëw di tàllal loxoom est-ce que kooku noonu boo ko jëlee jàppale ko mm-hmm. ci li nga xamante ni moom moom mooy projet sax la ñuy wax mm-hmm. nga am foo ko teg wala am loo dindi mm-hmm. jëndal ko li nga xamante ni mën na koo teg sax taawul di jaay est-ce que du ci jaay mendicité xaw wàññeeku ndax benn génn nga kenn benn sax ça fait l'occasion may nga ma occasion parce que comme tout journaliste parfois da ngay dem ay séminaire wala ay kii ay panel yoo xamante ne pour affaire u mais panel yooyu en ah, général ci hôtel lañ koy jëlee. Mhm. hôtel bu rafet la ñuy jëlee tout dem ndekki tout ñu ne fa suba ba ngoon di waxu waxu euh, taalibe yi. Mhm. man je trouve que toujours man damaa yàgg déplorer loolu parce que yow imagine jour boobu li nga fay saal boobu. ah, ah traiteur yeeg ñoom seen yooyu yëpp ngeen fay pourquoi pas ngeen dem def ko ci benn bayaal. Ah. xaalis boobu ngeen ne da ngeen bëgg a jàppale taalibe yi ngeen jël xaalis boobu. croissant yi xeet yooyu ngeen fay foofu di ngeen ci waxtaane ko ci daara bi mais dañuy waxtaane waxu panel waxu genre nañu def benn séminaire pour kii nangam nangam mais ci hôtel yu baax yi la ñuy dem état na jàppale daara na jàppale daara waajur yi tamit ku si ñàkk ñàkk sa doom bañ a dem daara nga téye ko sa wet boo mm. amee benn arab ci koñ bi bu ngoonee mu dem jàngi mm. parce que ni Penda wax sànq insécurité bi parce que ku nekk sa bopp nga tax jamono ji doo fi nekk mhm. a téye yu baax yoo xamante ne tamit xëy na moyen tamit day a cher parfois moyen mhm. yoo xam ne parfois moyen bi mais gis ñoo xamante ne nii ah. ay ay sëriñ dëgg la ñuy doon ay ah. kilifa la ñuy doon ay jaboot mm-hmm. la ñuy doon donc boo demee waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom si sa situation mm-hmm. peut-être du ñàkk sax sa benn doom boo xamante ne nii mm-hmm. mën nga koo dugal foofu ñu jàppale ko waaw suñu euh, li ñu mayoon ci waxtu waxtu dafa jeex mm-hmm. donc xam naa ne rek uh, ku ci nekk rek da ngay uh, uh, tàggatoo rek bu ko defee ñu joxe di dig daje beneen émission incha allah aha Clarisse waaw maa leen di gërëm di gërëm suñu mbokk internet yi nga xam ne ñoo safoo suñu chaîne bi di Evidence TV di leen wax merci si li nga xam ne moom ngeen di suivre tout le temps suñu émission bi di Aux Zénith di leen jox di daje ba fan yi mm-hmm. incha allah incha allah rabbi macha allah eh, may mën a ah, jàll. amoon kontaan rek mhm. toog fii di remercier internet di leen wax ngeen di partagé. comme ni ma ko ubbee woon rek. dama koy tëjee di ñaanaat ndimbal. Mhm. onon bandiraaɓe fof on noddaama aanam siwol ndiyam nana fuɗɗi naatde seeɗa seeɗa oɗon ñaaga duwaw mhm. oɗon ñaaga aussi balle a ah, que hunde so waɗi yo ummi yo ummi heen donc autorité ji e diaspora noddaama pour yoɓe mballa yimɓe vraiment <laughs> macha allah donc nañ doon daal autorité ji waa diaspora wonɓe sénégal onon fof on mbiyama yon euh, noddu futankoɓe walla yon jaton kadi nawa noon ɓe ballal mm-hmm. ah, ñagoɗen kadi euh, sernaɓe men ɓe kadi ɓe wooxee hen allah euh, ci noonu la ñuy tëjee suñu émission waaye tamit balaa ñu tëj comme nee naa leen man moom allah am na koo xamante ne nii suñu nit la suñu xarit la mu ngi fële ba Espagne ah, ñu koy wax Batman Batman tam vraiment suñu suñu waaw suñu émission bu nekk da koy partage di ko ah, suivre ah, vraiment waaw wax dëgg yàlla di wax ay retour yu rafet ci ñun donc Batman moo frère ba en plus tamit dafay jàppale doomu aadama mu mm. nekk nit koo xamante ne nit ku mën a jàppale doomu aadama macha allah loolu moom dana ko dégg léegi léegi incha allah rabi donc ban ñu koy bégee bu baax a baax di la wax rek nga nuyul ma jaaz euh, vraiment kontaan ci ñëpp bég ci ñëpp joxe dégg daje incha allah beneen émission Au Zénith mu ngi noonu yéenay boroom merci beaucoup